bu rafet foofu ca Touba ba sëñ bi daal di koy recevoir merci beaucoup seen bu baaxee rek dañuy daal di ànd ak Binta Laye ci revue de presse bi mu fas yéene ñoo yaatal yéenekaay yi dee ak le quotidien le quotidien daal di nay dikk ak ñun nag daal di def nataalu ki nga xamante ne moom moo di yaayu Marème Faye Sall def ko ca ala inam li ñu koy toppee mooy coowal suuf jàppal ne nag yaayu Marème Faye Sall moomee nekk ni tey daal di nañu koy convoqué ca gendarmerie bu ñu sukkandikoo ci le quotidien bu ma jàmbal jaañ bi mu daal di ne nag ka ko fas yéenee gunge du kenn ku dul Adama Faye moo ko fas yéenee yóbbu ba ca gendarmerie coowal suuf la ba tey ci le la ñuy daal di des des diggante Ousmane Sonko ak Madiambal Diagne waxtu boobee Ousmane Sonko daa di ne raxasu na ci ba set wecc waaye ay avocat wam daa di kii di Ousmane Sonko ab citoyen sénégalais bu am ay àq ak yelleef la danañ fa yéene topp kii di ma jambal Diagne ba fu mbaxane doonee benn waxtu boobee moom Yoro Dia daa dinay jóg takku ba dëgër di wane ab solidarité ci ginnaaw ki nga xamante ne nag moom moo di ma Madiambal Diagne Les Échos yéenekaay daa dinay dikk ak ñun nege ni tey bi nga xamante ne nag moom moo di projet Pastef waxtu boobee ci Pastef mu ngay confronté ak lenn ci loo xamante ni nag ay démon lañu waxtu boobee ni mu ko daal di waxee mu daal ne cotisation appel à candidature ak lenn ci ay nomination Pastef jamono joojee nag daal dinay nekk ci ay problème moom Abbas Fall daal ne nag maa ngi am ab réccu le fait que ñuy cotiser jamono joo xamante ne nag accédé nañu ak au pouvoir kàddu yooyee Abbas Fall moo ko daal di yëkkati ci les échos yéenekaay ci les échos yéenekaay la ñuy daal di des ndaxte nekk ni ëllëg boo moytuwul journal du génn rajo du tàkk xaar mooy journaliste taskatu xibaar yi ñoom nee nañ danañ ranger lépp loo xamante ne micro la lépp loo xamante ne nag ab plume bu ñuy bindee la caméra yeeg lépp ñu daal di koy def journée sans presse l'observateur la ñuy daw daal di koy wëyali mu dikk ak ñun ci justice bi nga xamante ne jamono joojee nag ab jeune daal dina ciy am lenn ci magistrat yi bu ñu sukkandikoo ci mesure yi nga xamante ne conseil supérieur de la magistrature daal dinañu koy jël rupture baax a baax union des magistrats du Sénégal gi nga xamante ne nag ñu ngay sàkku président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu daal di des ce conseil supérieur de la magistrature moo gën ñuy yëkkati ñeneen ñoo xamante ni xalaale ñu ci wàllu magistrature dara ñu leen cay daal di dugal ñu dem seeti ji beneen xëtu yéenekaay mu nekk euh, la tribune la tribune dikk na ak ñun ci li nga xamante ne moom moo di plainte contre plainte ndaxte nag mu ngay xamle ni Ousmane Sonko mi le nga xamante ne ay pôle d'avocat wam takku nañ ba dëgër fas yéenee yóbbu Madiambal Diagne fa mbaxane doonee benn Madiambal Diagne daal nay jukk ut ab bouclier bu mat sëkk daal ne plainte ci kaw plainte lay daal di doon ndax kii di Ousmane sonk dafa jug di acharné wu ca sama kaw waxtu boobee na nga xamante ni pôle d'avocat bu Ousmane Sonko nee nañ Madiambal Diagne la muy def ci kaw Ousmane Sonko boobaak dañuy daal di jug défendre seenu client bés bi la jour daal dinay dikk ak ñun ci mbir mu doy waar ginnaaw ab benn gaal goo xamante ne ca Foundiougne la doon bàyyeekoo def ci lu tollook ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay doomi aadama ay góor ak i jigéen ak i tuut tànk ñoom ñooñee ñëpp bëggoon a dem ca Espagne bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar nag jàpp leen ni gaal googee daal dinañu koy tegub loxo ca diwaanug Foundiougne waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëgg gaal ga jamono joojee force de sécurité tegaguñu leen loxo ñu nga cey wëyal boobule enquête bés bi jour daal dinay dikk ak ñun ci union des magistrats du Sénégal gi nga xamante ne waxtu boobee ñu ngay libéré président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di ne ko nag na des ci conseil supérieur de la magistrature lenn ci ay magistrats motif ba nga xamante ne daal dinañu koy yëkkati jamono joojee ca conseil supérieur de la magistrature mooy du beneen koor goo xamante ni dana ñëw daal di dugg ca biir conseil supérieur de la magistrature mortel combat gi nga xamante ne nag moom Ousmane Sonko moo ko doon woote woo jamono jële ay avocat wam daal dinañuy jóg takku ba dëgër daat ne nag li nga xamante ne ay attaques yoo xamante ne teguñu ko fenn la ak i saaga ak dénigré ki nga xamante ne nag moom moo di ilimaanu jëwriñi Ousmane Sonko loolee moo waral nag ba avocat yi daal di xam ne ne Madiambal Diagne mi toog ca compte X am ñu gënoon kaa xam ci Twitter yëkkati lenn ci ay dossiers yoo xamante ne nag da koy faral saa bu Ousmane Sonko génnee mu yakk ko lu mel ni xeme te tegu ko fenn loole nag ñu daal di ne dana daal di jeex waaye ki nga xamante ne moom moo di ma jambal Diagne moom tamit daal di ne jël ab décision daal di ne ab plainte ci kaw plainte lay doon ndaxte noppi na ngir porter plainte kii di Ousmane Sonko direct news waxtu boobee daal dinay ñëw ak ñun nag ci li nga xamante ne moom moo di voix yoo xamante ni saa bu Ousmane Sonko génnee ñoom ñu daal di takku ba dëgër yakk ko lu mel ni keteme ku ci jiitu ñu daal di ne Madiambal Diagne la Adama Gaye Mamadou Ibra Kane Thierno Diop Rama Seck ak kii di Yoro Dia discours bu Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko dala wax boobaak léegi bu ca noppee rek ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di taskatu xibaar yi te am coloration politique Ousmane Sonko waxtu boobee nag ay plainte mu nga dal ca kaw ndoddal kii di Madiambal Diagne ki ko def ñu daal di ne moo di maître Bamba Cissé Alioune Tine waxtu boobee nag moom mu ngay artu ca compte Twitteram la daal di dem di naqarlu bu baax a baax mbir mi nga xamante ne nas fas yéene naa am muy sàkku ci ay waxtaan yoo xamante ne nag mënees na kaa jeexal moom Alioune Tine moo di bëgg-bëggam yor-yor la ñuy daw daal di koy seeti ji mu dikk ak ñun ci assemblée nationale Guy Marius Sagna mi nga xamante ne nag daal di nay taxaw wax waa Benno Bokk Yaakaar raison yi nga xamante ne moom moom la ñu war a mën a teg ngir daal di dissoudre li nga xamante ne moom moo di pencu ndaw réew ma ba tey ci yor yor ñu daal di fay fekk nag coow loo xamante ni dafa jëm ci gestion boo xamante ne waxtu boobee rek daal di nay lëndëm lool ndaxte Pape Amadou Fall nekkoon fi direct nekkoon fi directeur bi jiite wàllum emploi daal na koy jël transformé ko benn structure woo xamante ne nag clientèle politique am lay jël di leen ca daal di dugal lu ëpp 800 personnes yoo xamante ne jël na leen daal di leen di dugal xamante ne amoon nañu ay contrat ak i convention yoo xamante ne ma neex te loolee li ko taxoon a jóg moom moo di xëyu ndaw ñi yoor yoor daal dina ciy def ab xët bu yaa di xam ne nag daal ne kii di Pape Amadou Fall Mbambula ga nga xamante ne moom la nekkoo nekkee ca direction de l'emploi bi nga xamante ne nag jël na ay nitam daal di leen cay dugal ñu daw seeti ji beneen xëtu yéenekaay muy libération libération daal dinay dikk ak ñun ci coowal World Side ak redressement fiscale woo xamante ni jamono joojee nag jóge na ca 41 milliards àgg ca 119 milliards 641 millions de francs CFA ñu ngay xam ne nag daal dina depuis novembre 2022 la ñu waroon a fay yooyu le koppar ba 2023 ñu daal di leen di defalaatal beneen nub redressement ba ca mujj ca redressement yi mooy 29 décembre 2023 waaye nag ginnaaw direction général bu yor impôt domaine ñoom le 6 juin la ñu daal di sàkku kërub liggéeyukaay gi daal ne koppar yooyee nag nañu ko daal di fay jamono jile nag dossier boobee daal dinay nekk ab dossier boo xamante ne mënees naa tardé lépp lu jëm ci wàllum pétrole ba ca Sangomar ndaxte Woodside noppiwul lu dul fay lu dul 7 milliards de francs CFA enquête daal dinay juddu ci li nga xamante ne ay jafe-jafe la ci Air Sénégal bu ñu sukkandikoo ci xibaar yooyee nag enquête quotidien daal dina ci indi ay dinañu koy dakkal ndaxte quatre avions yoo xamante ne bu ci nekk da ngaa fasoon toog fi la daal di tekk li ko waral nag moom moo di bailleur ba moom moo ne carrément vol yooyee du ñu jug daal di naaw coow li daal di nay toll ci cent milliards de francais CFA waaye waxtu boobee nag ñu ngay xam le ni Air Sénégal daal nañu koy sampal ay perfusion ngir mu daal di jug ginnaaw lenn ci ay responsable yu secteur ya ñu ngay xam le nag daal di ne daar daar lañu daw daal di luyee jiwaat li nga xamante ne ni moom moo di ay vol bu ko defee rek wàllum dem ak wàllum dikk gi gën a mën a jàppandi ñu daw seeti ji le soleil le soleil jant bi que président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak élimaanu jëwriñu Ousmane Sonko mu daal ne discours wi nga xamante ne ñu ngi ko yëkkati ci réseaux sociaux yi ci diaspora yi ak financement yi waaye tamit clé yi nga xamante ni moom la Pastef daal di def ba accéder au pouvoir mu daal ne dix ans yoo xamante ne nag daal di nañu ci xeex xeex wu méttee métti Ousmane Sonko mi nga xamante ne moom moo faree woon ci wàllum accélérateur ñaal ñeel boobule changement waaye adhésion bi nga xamante ni nag ndaw ñi daal di nañu koy def loolee lépp ki nga xamante ne xam-xamam dafa màcc jëm jëm ci wàllum politique muy Moumini kamara daal na ci indi ay leeraange ci xëtu yéenekaay bi di la Soleil mbooleem yéenekaay soxna bi liyaa lii la ñu xëy fesal ci seen à la une euh, Bintalaay Gueye ci yéen kaay leer na naa ngi macha allah merci beaucoup seen caali baaxee rek ñu daal di dem daal di ñëw euh, yaatal euh, actualité bi ñu waxtaanee ko ci plateau bi.